di dénk sama bopp ñu góor góorlu di leen ko dénk ci fukki fan yu mujj yii nga xamante ne fukki fan yi promotion la bi jiitu ci liñ ci war def ñu ànd tuub jëm ci suñu boroom waaye mu nekk tuub bu sell ci say wax ci say jëf ci sa lépp nga delloo yàlla sa bopp tuub wa anibu ila rabbikum wa aslimu la fukki fan yu mujj yi mbokk yi dafa am yu mu jagoo yoo xam ni moo tax ku nekk war a góor góorlu taxaw ci dundal ko soo ko mënee kon fukki fan yi mujj yi su ñëwoon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa su wooroon ñaar fukki fan fukk ya ca des dafa daan ijtihaad maanaam góor góorlu yokk lépp lu mu doon def dafa doon yee njabootam waa këram lu dul xale yu ndaw mais day yee soxna yi ne leen bu kenn nelaw njaboot gi bu kenn nelaw yaa Aysa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon góor góorlu ci fukki fan yu mujj yi lu ëpp <coughs> li mu daan góor góorlu ci yeneen fan yi maanaam lu mu doon def ci jaamu yàlla ci fukki fan yu mujj yi da koy yokk mu ne ba tey yaa Aïcha ne yonent bi sallallahu alayhi su fukki fan yu mujj yi ñëwee mu ne axyal layla day dundal guddi gi dundal guddi mooy ñàkk nelaw ci jaamu yàlla ci jàng alquran ci ñaan ay ñaani sunna ñaan yi ñu sentaane wa ayqada ahla da doon yee njabootam waaye li ci gën a yéeme nee na wa saddal miqdaar yonent bi day takk geñoom fukki fan yu mujj yi kon yéen borom soxna yi takk leen seen geñoo yi waay takk geñoo mooy fukki fan yi mujj yi nga sori soxna si sori ko sori ko ci lal bi sori ko lan moo tax dagan na joteek moom bu la neexee waaye ki yàlla yónni da doon takk geñoom pour wan la ni itte bi mu jox guddi gi àgg na ci sax amul soxla ci jigéen ñaareel bi bokk na ci jagoo guddi gi yàlla def cee def ci fukki fan yi mujj yi laylatul qadr nga xamante ni mooy guddi gi gën ci at mi yépp ci nassu quraan moo wax ni guddik laylatul qadr moo gën ci guddi yi yépp yépp yépp moo tax ñu tuddee ko laylatul qadr guddik dogal yi mooy la nuit du destin la nuit du destin muy guddik dogali ngir màgg gi mu am ak kañot bi mu doon kon at mi yépp li ci nekk ci tuyaaba dañu koy dajale nga am ci benn bis lu ëpp at mi bal lu ëpp juróom-ñett fukki at ak ñett kon loolu mbokk yi kañot la ku nekk ci ñun war naa góorgóorlu loolu bañ koo raw bu ci nelaw bu ci nelaw dee ci ñaan yàlla doom nga bëgg yàlla na la ko yàlla may jëkkër nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal jabar nga bëgg yàlla la ko yàlla demal laakin dee ko ñaan yàlla kon mbokk yi laylatul qadr guddik nangu ñaan la waaye fukki fan yi guddik nangu ñaan yonante bi bu weeru koor ñëwoon sallallahu alayhi wa sallam day wax ci xadiisu anas ibnu malik mu ne weer wii dey mbokk yi ñëw na am na ca guddi goo xam ni moo gën junniy weer képp ku yàlla xañ guddi googu xañ ne la yiw yépp yonante bi sallallahu alayhi wa nee na wala yuxramu xayruha illa mahrum nee na yiwu guddik laylatul qadr duñ ko xañ kenn ku dul ku ñàkk ku ñàkk teraanga xoola mbokk guddi gi nga nelaw ko ba mu jeex laylatul qadr romb la loolu mooy bu ñuy feet yow ñi gën a ñàkk solo yow ci nga bokk ñi gën a ñàkk fayda yow ci nga bokk ndax li nga dajale ci ay soxla li nga dajale ci ay itte loolu ngay nelaw te xam ni fukki fan yi ci la nekk loolu sàggan la guddi googu mbokk yi malaaka yi dañuy wàcc ñoom ñëpp di wàcc ndeysaan fan lañ jëm ci suuf fan lañ jëm fekki doomu aadama yi fan lañ jëm ndax anniversaire bu ngand la bu rëy la bokk na ci màndarga yi wàccuk malaaka yi moo tax ibnu kathir nee na yaksiru tanazzulul malaikatu fi hadihi leyla li kasrati barakatiha nee na malaaka yi dañuy wàcc wàcc lu bëree bëri lan moo tax ndax barke bi nga xam ni moom moo nekk ci guddik laylatul qadr waaye gis nga malaaka yi dañuy wàcc ànd ak barke ñun bi ñuy ut ànd ak yërmande bi nga bëgg yàlla defal la ko yàlla nañ ko yàlla defal nee na waxtu woowu nag bu la fekkee ngay jàng al alquran ngay rukkoo ngay sujjóot ngay ñaan amal xel mu dal ne yàlla nangul na la amal xel mu dal ne yàlla nangul na la lan moo tax salaamun hiya xatta matla il guddi googu borom bi nee na jàmm kese la bu set mbokk yi dogal yi xew-xew yi ci guddi gii lañu koy séddale mu jëm at miy ñëwaat ci guddi gi laylatul qadr kon jàppal na ci fukki fan yi am na ci guddi goo xam ni dogal yi ci lay ñëw kon sunu yaay ju baax jii di yaa Aysa nga xam ni mooy yu bépp jullit moo ñu laajal yonent bi ne waaw yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma xamee guddi gii bu mu tomboon wala ma war koo wër ci fukki fan yi te bañ koo rëcc lan moo gën ci li may ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ne ko qul allahumma innaka afuwun tuhibbul anna yàlla jéggalekat nga danga bëgg jéggale yàlla nga ñu jéggal waaw mbokk ana lan moo gën a rëy jéggalal yàlla allahumma afu anna yàlla ñu yàlla jéggal kon mbokk yi guddi gi ak guddi yu mel noona amul beneen santaane bu ñëw wér ci bu dul bii bu la kenn nax ne la sëriñ diw wax na sàngam ak sàngam soo ko jàngee ci guddi gi yàlla defal la amul amul garanti waxi naxa sa xandang la for fortaatu la mbokk yi bokk na ci nag ci guddi yi li ñu gën a sopp mooy bari julli ak jàng alquran bokk na ci it nag itikaaf ci ku ko mën mooy dem ci juma foo xam ne jullikaay jumaa la soo fa mënee def fukki fan yi nga xamante ni bëccëg yi da ngay julli di jaamu yàlla guddi yi ngay julli di jaamu yàlla bu fekkee sa liggéey mayu la ko nga xool ci ay fan bu la ko sa liggéey mayul guddi gu nekk nga départ nga ñëw nga julli ci ñaan ci yàlla yaakaar soo ci mënee aji màkk xéewal bu rëy la ndax xam ngeen ni umra ci weeru koor mook aj ñoo tolloo moo tax ñu bëri ndeysaan di ko bëgg di ko def wa sallallahu wa sallam wa baarak ala nabiyina wa xabibina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain